fii ci aan ci jumaa aan kappa wax dëgg yàlla jumaa ji nga xam ne ñu ngi nekk ci en construction di ko defar ah, xam naa ne ku gis ci biir dafa yaakaar ne pare na waaye ñu ngi ci kaw di defar su ko defee di sàkku ndimbal rek képp koo xam ne seetaan nga ñu walla nga dégg ñu soo amee looy joxe ci jumaa ji néegu yàlla jaa lay xaar ko defee ko am tonu ciment ku am ay fer ku am beton ku am ku am am xaalis jàkk ji soxla na ko ñu ngi ci liggéey lu waaye indi ñu defal la ko ci jumaa ji su ko defee mu ngoog ñu ngi tàllal bokk jullit yépp loxo lu waaye am rekk nga dugal ko ci néegu yàlla la mu ngoog su ko defee ñu delluwaat ci tafsiru alquran ñu ngi woon ci uxilla lakum leylata siyaami arrafasu ila nisaikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dégg nga bi loolu amee yàlla ne alima allahu annakum kuntum am anfusakum yàlla ne man xam xamoon naa sax yéen a ngi war seen bopp di ànd ak soxna yi ci guddi xamoon naa ko man yàlla fataaba <laughs> ah? fa yàlla jéggal na leen qabla tawbatikum njëkk ngeen tu tuub yàlla jéggaloon nag wa afa jëlla ne ankum gaa yéen wali séen fal léegi baachiruhunna na ngeen jonjoo ak ñoom na ngeen ànd ak ñoom wabtaxu na ngeen sakku maa kataballaahu lakum lépp loo xam ne yàlla euh, farataal na farataal na ko lakum ñeel leen ay abaahu min jimaay waaw lépp loo xam ne yàlla dagganal na ko ci ànd ci sëy ci rapport sexuel dafa am loo xam ne yàlla daganal na ko am loo xam ne dagganalu ko lépp loo xam ne dagan na ci sëy mooy yi su la neexee nga ànd ak moom ngeen tëdd ngeen taxaw ngeen jaaxaan ngeen sëgg lu leen neex ngeen def ba mu des ba mu des sëy ak moom fi muy kabine loolu liwaat la loolu araam na daganul nga sëy ak sa soxna doonte nag léeg-léeg góor ñi dañuy forcer seen jabar yi seen soxna yi ba ànd ak ñoom jigéen jigéen ñi nag seen xam-xam barewul dañuy yaakaar ne suñ la ko bañalee dañu def bàkkaar wala defuñ lu yoon fekk dañu ko war a bañ loolu bokkul ci sëy dafa daganul dégg kon moo tax wabtaxu na ngeen sakku maa kataballaahu lakum li yàlla farataal lakum ñee leen na ngeen ci dem ngeen bàyyi li yàlla araamal ci sëy du lépp a dagan wa ci weer koor wa ngeen lekk washrabu ngeen naan alleyla kulluhu guddi gi yépp ngeen lekk naan xataa yatabayyana ba feeñ ba biir lakum ñee leen alxaytul abyadu wëñ gu weex ga minal xaytil aswadi tukkee ci wëñ gu ñuul gi minal fajiri ci fajar ndeysaan dal na yàlla yërëm oustaz euh, Ousseyni Diallo dafa doon wax ne benn séeréer dafa ñëw tàkk ci bunt néegam tàkk benn wëñ bu ñuul tàkk wëñ bu weex nekk ci biir néegam rek di lekk nag di lekk ñu ne ko bët set na mu ne déedéet yàlla nee na ba ma xàmmee wëñ gu ñuul gi ak wëñ gu beex gi <laughs> fekk noonu la ko déggee fekk noonu la ko déggee waaye wëñ gu ñuul gi mooy guddi gi wëñ gu weex gi mooy fajar gi bi ñuy se fi ñuy séparé lekkal ba naanal ba fu ñuy séparé wu mooy fajar fu guddi gi séparé wu ak bëccëg bi nga arrêté dégg <laughs> su ma topp a timmo ngeen matal a siyama koor minal fajiri tukkee ci fajar ilal leyli yem ci guddi gis nga soo demee ci chia yi chia yi ñoom dañuy après timis diggante timis ak gee la ñuy ndogu ñu ne parce que yàlla dafa wax ni wa atimu siyama ila leyl guddi la wax ñu ne ko déedéet waxul fi leyl su fekkee ne ci bi guddi déedéet wa atimu siyaama fi leyli ah waa ilal leyli jëm ci guddi ilal leyli jëm ci guddi jëm ci guddi ak ci ci biir guddi du benn waaw xafu jar boobu dafay firi dafay firi ci biir ci biir doxaltu fil bayti zahabtu ila suuqi ah? jëm na ci marché bi dugg naa ci biir waaw su fekkee dugg naa ci biir da ngay utiliser fii su fekkee ne dem dem naa ci marché bi da ngay utiliser ila su fekkee ne war naa ci kaw fas wi da ngay utiliser ala yooyu yëpp huruful xafdi la huruful xafdi borom naxu bi ne xuruful xafdi min wa ila wa an wa ala wa fii wa rubb wal baa wal kaafu wal laamu benn bu ci nekk am lu muy topp ci temps ok kon wa atimmu siyaama ila leyli ngeen matal guddi euh, koor gi ila leyli jëm ci guddi moo tax yoon bi sallallahu alayhi wa sallam kon mooy mooy firi firi alquran mu ne wanu diba sunnaal nañu sopp nañu taajilul fitri nga gaaw a dog wa taaxiru suxuur nga yéexe xëdd xëdd bi na yéex bu xëdd quatre heures bul xëdd trois heures bu xëdd deux heures déedéet na nga bàyyi ba na nga xëdd ba mu sës ci fajar taaxiru suhuur dégg nga yàlla ne wala tubaashiruhunna bu leen ànd ak ñoom bu leen jonjoog mu ñoom ñoom jigéen ñi te wa antum yéen aakifuuna way sax ngeen fil di ci jàkk yi dégg mooy su ngeen sax di def itikaaf soo xasee ba euh, jël décision jël yéene sax ci ja julli gi euh, ci ci ci ko euh, ci jàkk ji loolu dañ koy def ci fukki fan yu mujj yi ci ci koor gi léegi léegi loolu ci ci lañ koy def ne ngay sax ci julli gi Euh, ci ci jàkk ji dootoo dem seen kër dootoo dem fenn dootoo dem ngénte doo dem ci jàkk ji ngay nekk di julli soo ci tolloo nag dootoo ànd ak sa soxna ci itikaaf bi tilka tilka yooyee atte xuduudullaahi mooy atteb yàlla falaa taqrabuha bu leen leen jege kazalika naka noonu kama bayyana lakum maa zukira yubayyinu llahu la yàlla di biréle aayaatihi ay aayam linnaasi neel nit ñi laallahum ngir ñoom yattaquuna ñu mën a ragal yàlla teet sore maharimihi wala taakulu bu leen lekk amwaalakum seen alal baynakum seen diggante ah laa yaakulu baadukum maala baadin bu kenn lekk sa alalu moroom te du ci bànneexu bàkkanam loolu nag ah, doy na waar chaque jour nga gis koo xam ne nax naa ko jaar naa ci kawam ak yooyu rek diil naa ko yooyu yëpp ñu ngi koy def ci oto yi ñu ngi koy def ci kër yi ñu ngi koy def ci terrain yi ñu ngi koy def ci lépp lépp ñu ngi koy def jël alal jaamu rek nga lekk ko mu nekk Europe walla ki yow di la di la envoyé xaalisam jëndal ma lii defal ma lii nga jël xaalis bi mu ñib day ñibbisi si rek du fekk dara fekk lekk nga ko bu yàgg yàgg yàgg walla taakulu am wàllu bàyyi na ko hmm? loolu baaxul su ko defee wa tudlu biha ilal hukkaam ngeen wommat alal yi sànni ko ci attekaay yi ci atekat yi attekat yi nga xam ne ñoom itam ku leen neexal ñu atteel la ni nga ko bëggee ah ñoo itam mbir mu mu màgg mu ngi leen gis nga yàlla dafa wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne kullu laxmin nabata fi shuhut fa naaru awlaa biha bépp yaram boo xam ne li ko tax duuf li ko tax di melxat alalu riba walla alalu nger ger mu ne fa naaru awlaa biha suuf safara rek moo ci yey te arrashi wal murtashi huma fi naari kiy ger ak ki ñi ah, ki koy ger ki ñuy ger ak ki koy ger ñoom ñaar ñëpp safar lañ jëm te yàlla su ko doon tànn fu mu nekk nii ñuy waa ah, ñu néew ñoo ciy mucc ñu néew ñoo ciy mucc nit ñi ci ger rek lañu dund ci ger rek la dund waaw yow nga nekk ñu fay la ngay atte donte atte bi sax du atte boo xam ne bu yàlla gërëm waaye moom lañuy bind teg ko fi mu nekk boo xam ne atte boo xam ne nu mu tudd ah xam code code pénal du noonu ñu teg ko fii ñu ne nañ ci atte yow nga war a atte hmm? nga war a atte di atte loo xam ne di jeng ci sa atte ngeen jël alal yi lekk alal jaamur ba pare jiitu ko nag yóbbu xaaju alal bi yóbbu ko ci attekat bi fariqan kuréel li taakulu ngir ngeen lekk fi taxaakumi ci attekaay bi fariqan kuréel min amwaali naasi ci alal nit ñi bil ismi ci bàkkaar te wa antum yéen taalamuuna aji xam ngeen annakum yéen mubtiluuna yéen yéen a yàq parce que dana yóbbu alal ji lekk ko ba pare yóbbu ko ci genn wàll gi ngeen yóbbu ko ci atekaay wax ji jeex yàlla ne yasaluunaka ñu ngi lay laaj muhammad sallallahu alayhi wa anil anil ahillati ci teruwaay weer lu tax weer su teru njalbeen bi dafay sew muy muy yokk mu yokk xataa tamla'u nuuran summa yaudu kama badaat wala takuna ala xaalin ka shamsi lu tax dañ lay laaj yow yonent bi aleyhi salaatu ci mbiru weer weer suy teru dafay sew ba mu yàgg muy dolleeku mu yokk mu yokk ba leeram mat mu nekk badar topp muy commencé wàññeeku wàññeeku ba ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu commencé woon nekkul comme euh, comme jant rek jant rek ba day day génn rek moom matale yonent bi alayhi salaatu wa salaam war leen tontu mu ni qul neen leen yàlla ne wax leen hiya loolu mawaaqitu mooy tërwaay mooy mawaaqitu mooy waxtu linnaasi ñeel nit ñi wal xajj ak aj ci lañuy xame waxtu yi ci lañuy xame weer yu ñu aje dëng walaysal birru walaysal birru déet mbaax déet yiw bi antaatul buyuuta ngeen dikki ay néeg min zuxuriha ci ginnaaw ya dégg nga mbaax nekkul ci ñëw ci kër tëb miir bi walla tëb palanteer hmm? yàlla santu ko kenn soo ñëwee ci kër jaaral ci bunt moo tax gis nga Omar ibnu Xataab radiyallahu anhu bi mu nekkee amirul muuminiin moom moo moom moo njëkk sos rond rond président boo xam ne wala buur boo xam wala amir boo xam ne dafay rondu population bi day bàyyi ba guddi rek mu ne aadama gunge ma ma gunge ko ngeen di ànd ñëw mu ñëw di romb bunt kër yi mu romb fenêtre yi mu romb di déglu information moom moo koy jëlil boppam lan la ñuy wax ci nguur gi lan la ñuy wax ci Omar mi nga xam ne moo nekk xalif ah xalifatulaay benn bés nag mu ñëw romb kër rek ci fenêtre bi fenêtre bu yaatu mu gis benn waay boo xam ne mu ngi attablé ci biir kë këram bi ci biir saalam di naan sangar te ku naan sangar ba ñu la jàpp ba ñu jàpp la dañu lay caw caw juróom-ñetti fukki yar quatre-vingts yar Omar ibn Khattab dafa yëg yàkkamti rek tëb fenêtre bi rek ñëw fekk ko foofu ne ne ko man maa la maa la jàppal sama bopp li sàngara la te danga ko doon yaa ngi jàpp waa ji ne tekk ba mu yàgg mu ne ko ah xam naa ne daal man def naa xam naa ne séeréer bu muus la mu ne ko xam naa def na benn bàkkaar waaye def nga ñett yow Omar waaw def naa benn bàkkaar waaye yow def nga ñett mu ne yan ñett mu ne ko yàlla de waxul woon su ngeen ñëwee ci kër wa aatul buyutu min abwaabiha na ngeen dikk kër yi ci bunt yi te yow jaaroo ci bunt da nga ñëw tëb sama fenêtre loolu loolu nag foo ko teg ay alquran la wa atul buyuta min abwaabiha wa atul buyuta min abwaabiha dikkee leen ci dikkee leen kër yi ci bunt yi violé nga yow Omar mu ne kook benn mu ne beneen bi yàlla dafa waxoon ne wala tajassasu bu leen yëddu yàllaa ko tere ci alquran te yow da ma yëddu soo ma yëddu lii lii yëpp da ko gis parce dama ko doon nëbb soo ma yëddu woon doo ko gis da ma yëddu te yàlla dafa tere yëddu mu ne ko ñaar mu ne ñetteel bi yàlla defe ne isa su ngeen duggee ci kër fa sallimu ala ahliha fa staasinu su ngeen ñëwee ci kër fa staasinu na ngeen sakku ndigal su ñu leen waxee na ngeen dugg ngeen dugg suñ leen waxee bu leen dugg ngeen bañ dugg te yow sax waxoo konkon wax kenn ba kenn wax la entrée sax da nga tëb rek jaar sa pone yow violé nga ñett man nag benn laa violé Omar Omar ibn Xataab xool bopp ba noppi ba mu yàgg mu ne toskare ñeel na Omar ndeysaan may jubal nit ñi te ndekk ne man jubu jubaguma les grandeur la su dul woon su doon keneen dafay utiliser pouvoir am ak dooleem ak kii yooyu mooy fekk naa la kii waaye dafa dafay déglu benn yoon muy muy muy def muy dox def dof rond ba ñëw ci benn kër benn jigéen mu taal benn taal te teg ci cinam ay doomam di jooy ñii nelaw nelaw nañu ñeneen ñi ñu ngi du jooy muy xàmb rekk muy xam mu ànd ak ki mu àndaloon ñëw ba foofu ne ko kii kan la mu ne ko man mu ne lii nag lan la mu ne xanaa jaaxle rek ak xiif sama doom yi ay ay ay jirim lañu ñu nekk fii lekkuñu amuñ lu ñu lekk léegi nag ma teg cin li pour ma teg cin li pour naxee leen ko ay xeer kese laa ci def naxee leen ko lu ba ba ñu nelaw ndax maa ngi waat ci yàlla ah? su changé wul Omar ibn Khattab su changé wul yàlla danañ at kii yàlla danañu at dañu dañu dem na yàlla atte ñu ci kanam Omar ibn Khattab ne ko waaw seen xiif bi ak seen mar bi lu ci yoonu Omar mu ne aha kay wa tawallana wa dayya umurana yàlla moo ko fal ci suñu kanam ah? muy mu sàggane ñu mu sàggane ñu moo ñu sàggane te moo yor baytal maal ak lépp lépp alal alal alal lislaam yépp moo ko yor mu sàggane ñu mu ne ki mu àndaloon nañ dem bi mu demee delluwaat këram rek dem ci baytal maal ñëw mu ne gardien bi ubbil mu ubbi mu yenu saaku farine saaku tàndarma saaku saaku saaku dugub sa saaku ñooñ di yenu ñu ne ko léegi de Omar ibn Khattab doo yenu dangay ngay bàyyi ñun ñu yenu mu ne ko déedéet li ngeen bëgg loolu laa bëgg mu yenu saaku farine bi mu yóbbu bi mu ñëwee mu ne loolu laa njëkkat ki mu mu mu gin di xeer yi jël euh, laax laax farine bi ci kii bi ba mu ñor def ko ruy def ci suukar ba pare yee xale yi jël mbattu di leen di leen sexal ba ba ba ba ñu suur mu ne ndaw si su bët setee nga fekk ma kër Omar ibn Khattab na aussi bàyyi ba ay 9 heures yooyu mu dem kër Omar ibn Khattab mu ñëw rek gis Omar ibn Khattab xàmmee ko te mu toog ci place amirul muminin mu tiit bëgg a dellu ginnaaw Omar ibn Khattab déedéet kaay mu ñëw man maay Omar ibn Khattab waaye li taxoon ma woo la pour li ñu lay jox lu ñu lay jox ma ma ma feeñal ko fi wane ne dañ la koy jox loo xam ne lu ñu lu ñu nëbb lu ñu nëbb ñu jox la ko ñu signé ko ñu ne ko weer wu nekk ñu koy jox temps dégg nga wax waaw kay sama turandoo kenn du moom hmm. dégg nga kon walaysa al birru bi an taatul buyuutu min zuhuriha walakin al birra gis nga mbaax ma ni ittaqa ki nga xam ne dafa ragal yàlla bi tarki maxaalafatihi bàyyi wuuteeg borom bi subhanahu wa ci ay mbiram wa aatul buyuuta na ngeen dukkee néegi min abwaabiha ci bunt ya dégg nga mooy aay bi wa taqullaa moo tax ñu ne wa atul buyutu min abwaabiha ñu ngi ci jublu góor góor na nga dikkee ndaw si fi nga war a jaar min abwaabiha ci bunt ba bul dëpp tëb fenêtre bul tëb fenêtre baaxul dégg nga waaw léegi nag li ci des lu la neex position bu leen neex de def leen dégg nga position bu leen neex def leen ba mu des allahuma bu mu des boobu ma bokkul wa aatul buyuuta min abwaabiha wa taqullaha te ngeen ragal yàlla laallakum ngir yéen tuflixuuna ngeen texe dégg wax jooju jeex yàlla ne waqaatiluuna ngeen xeex fi sabilillahi ci kawel diine yàlla ngir kawel diine yàlla dégg waqaatilu fi sabilillahi allazina gaa yi nga xam ne yuqaatiluunakum ñu ngi xeex ak yéen xeex leen ñoo xam ne dañuy xeex ak yéen ma yéeféeri dégg ولا تأتدو بولين جلغتي تي خيخا كو خامن خيخول اك يو ان الله يال لا يحب دو بغ دو يول المعتدين واي جلغتي وهذا لي منسوخ بايه براءه ايه بي دنجكو فولي تي ايه ايه براءه xam nga ay bobu lan wa qaatiluhum xata la takunu fitnatun wa yakunu diin lillahi kullu dégg yàlla ne waqtuluhum na ngeen leen rey xaysu wa fu ngeen leen mën a fekk rey leen wa axrijuhum na ngeen leen génne min xaysu axrajukum fan lañ leen génne woon mag su ngeen leen fekkee itam duma leen ba ñu génn mag foofu lañ leen génne woon yéen itam génne leen leen ndax wal wal fitnatu gis nga bokale minhum ci ñoom ashaddu mo gën reey rëy min al qatl ci xex ci ci ci ci bir makk dal masjidil haram fas kaaba ga bu len xex ak ñoom fofu hatta yuqatilukum fii bañ xex ak yéen fofu fañ xex fañ qatalukum suñu xex suñu xex xex yéen fofu faqtuluhum na ngeen xex ak ñoom kadhalika naka jazaau mooy pay al kafirun yeferi fa in taxaw suñu daytalu nag anil kufri ñu bàyyi weddi yàlla ñu bàyyi weddi muhammad sallallahu alayhi wa beddi wa bàyyi weddi alquran wa aslamu ñu daal di jébbalu fi inna allah yàlla xafuurun jéggalaakoon la lahum ñee leen rahimun aji yërëm la bihim ci ñoom wa qaatiluhum na ngeen xeex ak ñoom xataa la tukunu ba du nekk fitnatun bokkaale wa yakuunu nekk di nekk addiina jaamu yàlla lillaahi ñeel na yàlla wax du moom dong لا يا لا يعبد سوى دوني جام كودل موم فان انتهوا بني دايتالو نك ني باي بوكالي فلا عدوان ديت جالغتي الا على الظالمين تدل تي كاو ني توج الشهر الحرام ها الشهر الحرام خيخ تي وير ييغا خامن دانيو اورما دانيو دانكو اورمال وشهر الشهر الحرام وير يي اورمال bichaaril araam mu ngi ci weer yi ñu araamal xeex dégg nga wal xurumaatu ak urum yi dégg xisaasu nekk na ci fay xisaasu nekk na ci fayu ci weer yi ñu ormal soo ci defee loo xam ne soo ci jalgate nga dem rëbb ci walla rey ci lenn loo xam ne tere woon nañ ko rey ci weer yi ñu armal dëng kon boobu dangay fay xisaasun su fekkee ne dangaa war a rey ah, dangaa rey kéwél dangay fay béy noon dañ dafa am ñoo xam ne spécialement ñoom la ñuy tànn pour ñuy àtte lool ña ñu àtte lool lépp loo rey ci àll ba dañuy gam-gamle dañuy seet lu tolloog moom ci juri kër yi nga fay lool fa ma ni tadaa képp koo xam ne jalgati na aleykum ci yéen bil qitaali ci xeex fil xurum ci arom bi awil ahraam ci weer yu ñu armal aw shahrul hur ahraam insha allah weer yu ñu armal fa atadu na ngeen jalgati aley ci moom bi mislima atada kem li mu jalgati aleykum ci yéen dégg nga képp koo xam ne xeex nag yéen ci weer yooyu wa taqullaha na ngeen ragal yàlla wa alamu na ngeen xam xam allah yàlla ma al muttaqiina mu ngi ànd ak way ragal yàlla yi bil aw ni ci sot wan nasri ak ndimbal wa anfiqu na ngeen dépensé seen alal fi sabilillahi ci yoon yàlla wala tulqu bu leen sànni bi aydikum seen bakkan ila tëhlukati jëm ci lu koy lor ah loolu dafa bokk ci mbëkk mi ñu doon wax mbëkk mbëkk mi ah barça wala barcelone barcelone wala barça yàlla dafa tere bak nit mu sànni bàkkanam loo xam ne da koy jural loraange daganu ah waa bokk na ci itam bokk na ci bét bétey laa tulqu aydikum ila tahlukat soo déggee nit dëkk bi genn wàll gi dañoo feebar korona nga ne danga fay dem hmm? sànni nga si sa bopp ci alkande moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne su ngeen déggee benn feebar hmm? lu mel ni épidémie walla beneen fran beneen kii bi beneen baat bi ah pandémie mu ngi ci dëkk bu leen bu kenn génn dem ci dëkk boobu du kenn dem ci dëkk boobu su amee ci dëkk bi itam bu kenn génn dëkk bi neen dangay dem feneen kon kay li gouvernement bi def def ni frontières yi frontières yi mooy lu mag région yi yonent bi sallallahu alayhi frontières région département ak département ngir sécurité du noonu tere ñu julli ci

ah njàng nag jàng nag day ànd xel bul seet sa bëgg-bëgg seetal bind yi moo tax alquran ak sunna kenn du ci demee xelam xel da ngay appliquer ak appliquer alquran wala sunna mooy xadis yi wala ijma boroom xam-xam yi ñu dëpp hmm? lu fii sallu fi buyutikum bi ñu bi nga ma doon laaj bu fi buyutikum li ko waa indi woon da nga pandémie ci ci ci ci léegi la ko tàmbali léegi la commencé jaaroon na fi mus na am loo fi gis rek mus na am mus na am kon bu leen sànni seen bàkkan yi ci alkande wa ahsinu na ngeen rafet rafetal fi na bi nafaqati ci dépenser seen alal dundele wa xayra ak lu dul lool inna allah yalla yuhibbu dana yool dina bëgg muhsinin ñi rafetal wa atimul hajj na ngeen matal aj wal umrata ak umra lillahi ñeel yalla ngeen joxe ko ci ay akam wa in sirtum suñu leen embargo nak fa mastaysar na ngeen def lu jàppandal minal xaddi ci adiya wala tahliqu bu leen dëng wat ruusakum sen sen bopi xataa yabluqa alxadyu ba adiya bi eh, addu xadyu bi da àgg maxillahu bërëbam fi ñu ko war reye mooy mina fa man kaani képp koo xam ne nekk na minkum ci yéen maridan mu nekk aji feebar aw bihi walla nekk ci moom azan lor min rasihi ci boppam loolu moo tax walla luy ay mel na ay téeñ walla dafa ab dafa ci gaañu walla dafa ay ay ay ay ay ay picc ay góom boo tax mu watu fa fidyatun dafay def fidya min siyaamin ci koor li salaasati ayaamin mu woor ñetti fan aw sadaqatin walla mu joxe sa <clears throat> bi salaasati aw soyn <clears throat> dégg nga min xaalibi quuti quutil balad ala sittati masaakin dégg aw nuskin walla mu rendi gàtt dégg nga loolu yépp kafaar bi fa in su ngeen demee ba wóolu ci seen noon yi fa man tamatta képp koo xam ne xéewulu na bil umrati ci umra ilal xaj yi jëm ci aj fa mastay sara na def lu jàppandi minal xaj yi ci aj gis nga loolu mooy tamattu aj dafa am lu ñuy wax tamattu dafa am ifraat dafa am qiraan tamattu mooy tamattu mooy koo xam ne danga demoon def umra yàlla dogal nag def nga umra ba pare ba génn ci ba sol sa yére nekk ci Màkka ak nekk ci Medina ak di wëndeelu ba aj jot ba aj jot nga araamal aj loolu koy mooy tamattu ku xéewul maanaam daal yàlla xéewale na ku mu def umra toog na foo ba aj fekk ko fa kooku nag su ko defee ba pare ah dangay def dangay rendi gàtt moom mooy Euh, kii da def fidya hadiyu dangay def hadiyu hadiyu boo xam ne dañ koy rendi ji minan di gars yi di minan dégg muna walla minan dégg foofu lañ koy rendi léegi nag képp koo xam ne fa man lam yajid fa man lam yajid ku amul nag li mu rendi foofu li mu re euh, jënde gat fa siyaamu salaasata ayaamin na fa woor ñetti fan fil hajj ci aj dégg nga wa sabaatun ak juróom-ñaari fan isa atum su ngeen delloo seen réew léegi-léegi nga gis ah, nga dem nuyu ji benn ujaaj dem ziyaare ji ko ñu ne dafa woor dégg soo déggee ni dafa woor rek xamal ne dafa def tamatoo woor na fa ñetti fan ñibbisi na fi dafay woora fa jërëm ñaari ñaari fan su ko defee mooy tilka asaratun kamila tilka asharatun kamila liman lam yakun ahluhu haadir masjid haram dégg tilka yooyu asharatun fukk yooyu kaamilatun yu mot mooy ñetti yalee ak juróom-ñaar yi zaalika loolu de liman ñeel na ki nga xam ne لم يكن نكل أهله أي بكم حاضر المسجد الحرام نجي دكي فوف دنج في مسجد الحرام موي مك دنج يالا نبا تقوا الله نغي راغال يالا وعلموا نغين خم ان الله يالا شديد كتر العقاب نموي مبغلي الحج اج اشهر ay weer la maalumaatun yu ñu xam shawwal wa zulqa'dati wa ashur layalin min zilxijjati wa qil kulluhu deng faman farada fihi al hajj kep ko xamne farat faratal na ala nafsihi ci bopam fihi ci weer yoy al hajj aj fala rafas bu mu jonjo wala fusuq du mu def ay bakar wala jidaal bu mu werante fil xaj ci aj wa maa tafaalu lépp loo xam ne def ngeen ko min xayrin ci yiw ka sadaqatin dégg lu mel ne sarax yaalamuhu llahu yàlla xam na ko wa tazawadu na ngeen wut yóbbal fa inna xayra zaadi at taqwa mooy ragal yàlla yóbbal bu gën at taqwa mooy ragal yàlla wa taqu wa taquuni na ngeen ma ragal yaa ulil albaabi yéen borom xam-xam yi la allah sadaqallahu alazim kon nu teg ci suñu baaraam ba ëllëg incha allah eh, ñu delluwaat ci tafsir bi ñu ngi sant ñëpp di di leen gërëm di leen ñaan yàlla yàlla def ñu ci ñoom ñun dégg ak topp hmm. yàlla defal ñu ci weeru koor gi tawfiq ak taysiir bi jaay seydi ruju sallallahu alayhi wa sallam yàlla dàqal ñu balaa bi ñi ci génn àddina yàlla na leen yàlla yërëm ñi ko amee yàlla na leen yàlla wér ñi ko amagul yàlla na leen ci yàlla musal bi jaay sidi sallallahu alayhi wa sallam salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh